kon sëriñ bi ci boppam mooy ko xam ne bu dee digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam la sëñ Moulay Bousso doon wax rek ne ida stabaxal ubadu kaana amaamahum wa fi matti xayril xalqi xaydul awaabidi laqad faaxa kullan fi salaati ala nabi wa fiha bada taqdimuhu bil mashahidi nee na nee na nee na bu jaami yàlla yi dawee wuti yàlla di ko jaamu ji fekk sëñ Tuubaa ca kanam juróom ñaar fukki at ak juróom la dund mës sa tiim mës sa faat waxtu mës sa juyoo ak boroomam mës sa tooñ bindeef ku ko tooñ baal na la te xat-xat yim nekk ku ne la dund na ko ba noppi te sa tiim amul waaw dem démb mbokk moom ma demoon mooy nett nettali ci suba gi laa la ma door a def jël ba ma ba ma daanu ci di jooy jooy métt ci suba gi yàlla xam na ko fekk dañu dañuy waxtaan mu wax ne dafa demoon di topp ci archive archive yi mais jour jugement sëñ Touba bi ñu atte sëñ bi ba mu fa jógee moom daa fekkee woon jugement bi te kilifa la ci kilifa yu góornóor yi dafa ñëw dindi yam jël ab sér jox laaj soxnaam ab sér na ko jox ma ko ma takk andi ma woddu daan na ko góor moom dama k daan dégg waaye maa ngi koy door a gis Ahmadou mee ca biirum Ndar kooku képpay góor daan ndax ba ma fa dalee nekk ba léegi mosuma dégg ku góor noon a defal mu ne du def ci moom dong laa ko mës a dégg daal na kon góor moom dong ko doon te noonu loolu engagement boobu Sëñ Tuubaa di jël lépp Rasulullaah tax innil xadiimu ay su uqiimu fu ma mën a nekk yow laay liggéeyal liggéey ba mu doon liggéey fu mas a nekkit gàmmu nekk mbiram asas la tàmbali gàmmu 1301 1301 di 1883 la Sëñ Tuubaa jëkk a tàmbali gàmmu ahyaytu mawlidin min assasine wan qaada li fawqal muna fii telses telses googu fi ne ci la woote màggal gi mooy 1921 boo gisee fi ne màggal a gàmmu doon lu yéeme wan qaada li fawqal muna fii telsesin nga xam ne ci telses di 1321 1921 euh, wala doon 1339 ci la waxee ne mboolee lu ma doon sàkku ci gàmmu am naa lu ko kawe ci telses moo tax màggal gi ñëw mu woote ko cant fu mu mas a nekk it day gàmmu wajatu wa ci liman takrimuhu baana fii chahri mawlidi man fii bahri rabbana ba muy nekk ca géej ga am na gàmm ko fekk gabon goo xam ne euh, jëmmi sëriñ bi yor na ganaar di wër gisul ku ko rayal gisul ko jox am na gàmm gu ko fekk soo xam ne senn saatu képp la sëñ bi yor sëñ bee demal boppam ba ca jaba mu wecc ko jaay saatu si jënde koy këyit ñëw di tagg rasulullah keroog nee na muqaddamatul am la doon bind waaye bu ne wasixtu bi rabbil arsi sil juudi wala afi mahal mustafa m li muxlini nee na rasulullah daa wàcc mbar tiim ma ànd ak jibrilu lu ma bind yonent bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom ba ma agsi ci ko uusu ko tasxini bi xeeta bu shoratin yonent bi ne ma am naa déeg boo xam ne yàlla ma ko sédd kenn musu caa naan ku dul man kaa dem ma yóbbu la ci sëñ bi ne ba ma sukkee daa mel ni déegum noor ba ma siggee mu mel ni bopp cooroor keroog jalaal jeeg jamaal ji dar na ma ba ku ma waxut ki ma doon xamoo ko loolu moo andi wali xaada an wali xaada siran xaaba an xayrihi muhyi kon moom jëkkalante wut ak kenn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam